war nañ ko mën a def du ñu xool réellement ñun li ñuy def nii ban intérêt la amal population bi ak tamit ban conséquence lay am tey bu fekkee ñun ñoo bokk benn combat muy lan dañu fee war a jëlee régime bi fi nekk. Hmm. quel que soit le cas dem nañu tey ba boole tey suñu force ñu ne waa journaliste yi taxawal nañ ñoom seen FDD. Hmm. waa ARS suñu élection taxawoon nañ fi. Hmm. waa F24 taxaw fi. tay wa F25 moy candidat yi taxaw fi. Mm. ñooñu ñëpp ñu tok gis ni ñun kat li ñu bëgg xex benn la. moy mm. nañu am date élection na fi régime bi jógee. nañu bolé suñu suñu euh, force ñu tuddé suñu bop fippu. Mm. ñun ñëpp tay bu ñu toogee tey ba organiser benn mbir. tay amul kenn ko xamné dafa wara a ko suñu biir. di xajamal li ñuy def lolu koku képp ku koy def da fay melni yow yaangi dolel pouvoir bi. yow dafa mel ni sax yow bëggoo sax changement bi nga xam ma la wax. parce que au fur et à mesure que ñuy dem. ñuy nit ñi di mën a gis réellement ana kan moo bëgg changement système ak kan moo bëggul changement système mm. dafa mel ni ñoom euh, xamu waa taxawu la xaw ma dafa mel ni ñoom ba léegi ñoom système bi waaw ndax xam nga ndax xam nga loolu nee nañ nee nañ nee nañ waa taxawu la nee nañ Bart la xam nga tamit taxawu xam nga tamit nit mm. nit dama lay wax de mm. gis nga dans les partis dafay am dafay am li ñuy tuddee ay clan xam lu tax dina am ay nit ñoo xam ne xalifa la ñuy àndal am nit ñoo xam ne Bart la ñuy àndal am nit ñoo xam ni keneen la ñu àndal. léegi nag nit ñooñu nag ku bëgg yàq mën nga utiliser mën nga dem si sax yow sa biir camp sax nga fexe sax yow xajamal sa biir camp parce que yow diw moom nga nekkal sax neexu la. Mm. loolu moo fi am. Mm. te nag xam nga boo ne taxawu rek déjà Khalifa Sall ngay viser doo viser barte donc man du ma ne waa taxawu mais dama naan peut-être. li ma dégg. li ma dégg li ma jot a dégg mais dañ ne ay ay jeunes la yoo xam ne Bart moo leen yónni mm. li ma dégg mm, te seetaan naa seetaan naa benn benn vidéo kenn ku jigéen di wax ni di wane oto boo xam dañ ko toj mu ne sama oto rakk la xam mag dañ kaa toj te ay nitu Bart ñoo ko def mm. ba léegi tuddul taxaw kon loolu tamit il faut ñu mën a def différence si si bu ñuy analyser du ñu du nit dafay def rek automatiquement rek ñu ne ñii la xam nga la plupart nit ñi dañuy toog ñu naan moom moo tontu si li nga xam ne que moj yooyu euh, laaj yëpp

nit ku toog ne waa Pastef ñoom ñooy saaga. Mm. mais yow réellement ki bind saaga boobu est-ce que xam nga ko. Mm. gisoo ko xamoo turam xamoo fu mu dëkk rek nga ne waa Pastef la wala nga gis kenn saaga rek nga ne noo waa APR la wala waa mm. loolu loolu nit balaa ngay accuser na fekk ne na nga si am lu leer ñun moom. man moom ak ñi nga xam ni itam jël nañ ko Ahmed féete leen ko seen coalition wala parti tant d'autres et tant d'autres ban jàngat ngeen siy def. si ban accusation. non xam nga xam moom laa lay wax xam nga loolu laa lay wax xam nga xam nga ñooñu partisan exemple xam nga ñooñu Cheikh Yérim la même chose ñooñu lan lañ bëgg nee na yëf yi fu mu jógee xam nañ ko euh, Pape Djibril Fall la même chose est-ce que duñ nekk dañoo nekk si en récupération politique waaw mais mais loolu laa lay wax mooy que ni ñoom dañoo ils sont en perte de vitesse jeexal nañ te comme jeexal nañ nag ki nga xam ne moom moo am vitesse kooku la ñuy jéem xool naka lañ koy téyee léegi nag lépp lu xew dañu naan diw la xam nga fii dañ doon wax lépp lu fi mënta am si yàqute Ousmane Ousmane Sonko moo woote woon. Mm. mais tey bi Ousmane Sonko nekkee biir prison ba léegi yàqute yu fi yàqute kan moo ko woote nañu wax kan moo woote yàqute yi ki jëf ki def li tax yàqute yi am kooku la ñu war a la ñu war a wax. mais respon responsable yi si mooy ñi nekk si régime bi donc ñoom ñoom ñi ñuy yónni si télé bi man man dama leen classé dafa am ñoo xam man dama leen classé. parce que lepp lu ñu wax rek pour yakal ñi nga xamne mom moy euh, coalition euh, Sonko président wala Diomaye président mom mom mo moo leen tax a parce que ñom gëmuñu à euh, mais taire Maïmouna Ndour Faye waa waa pensée unique mais Maïmouna Ndour exactement Maïmouna Ndour Faye Maïmouna Ndour fay ñaata at ñaata at mo ngi tok di wax hein lo xamne li nit ki da ci d'accord ak lo xamne nit ki du ci d'accord man may Maïmouna Ndour dama koy suivre émission damay tok di deglu mais bu waxe dama nan may mën a ndur tey li nga wax ni man d'accord ma si. Hmm. bu waxe dama nan d'accord na si li mu wax mais lolu est-ce que dina tax nit di mës nga nit juk ñu nan day dal si kawam est-ce que lolu mais pourtant amna ñu amna ñu amna ñu yenen amna ñu yenen pensée unique. Hmm, hmm. pensée unique mom nit ku nekk fi nga fété da nga yoya yow ya yow ya yow ya yow ya pensée pensée universelle wala mais régime bi tay bu ci xolé tay ñom ñoy pensée unique parce que ñom ñoo ñom ñoo bëgg lo nit ñi ni projet bi nit ñi di wax ay fen la. ñoom ñoo bëgg a gëm loolu kon ñoo ñoo yor pensée unique mooy gëm leen ni ñii ay fenkat lañ te loolu lépp lu ñuy def seen action yi ñuy def yëpp pour wane ni ñii ay fenkat lañ ñii duñ jëf lu baax ñii ñoo yàq kon yooyu yaa yor pensée unique kiy def loolu ko yor pensée unique mais ki nga xam ne moom dafa ubbi boppam ñëpp di ñëw hmm. yow nga ne ko yor pensée unique kon yow yow yow yow yow xelu woo kon dañuy wax rek dama li ma li ma bëgg leeral mooy hmm. nit ñi bu ñuy wax wax lu leen wóor tey gis nit ñu agressé ko tey ñaata nit lañ fi agressé euh, kii nu mu tudd sax Damboj. Mm. bi mu génnee TFM dooruñu ko fi ay bal. Mm. la moo tax waxuñu waa Pastef la. la moo tax waxuñu waa taxaw la la moo tax waxuñu waa APR la. mujjewul fenn mujjewul fenn ana enquête ana ana plainte bi mu déposé woon mujjewul fenn. Euh, kii pap Pape Sané bu Walf hmm. newul woon ni dañ ko fi doon topp pour agressé hmm, kii Pa Pape Matar ak ak kii nu mu tëdd sax euh, maam Biram hmm. agressé wuñu leen fi woon ana ana kii yooyu enquête yooyu fan la toll la moo tax waxuñu bi ñu leen agressé la moo tax waxuñu waa APR la wala waxuñu waa Bennoo la wala waxuñu waa Taxaw mais agression bu munta am si Sénégal rek bu bu bu demee si kenn koo xam ne li mu doon wax dafa arrangé pouvoir bi rek ñu ne waa Pastef la mais loolu mooy loolu mooy ñoom ñooñu ñoom ñoo yor pensée unique léegi nag nit ki nag yow li nga yor parfois da ngay bëgg yow di ko di ko sol nit ñi ba nga yor pensée unique da ngay jàpp ni yow ñëpp dañoo war a yor pensée unique te ñoom ñoo ko yor. waa waa waa waa waa coalition bi amul kenn ku fa yor pensée unique. Ah amul y en a pas. paré ngène instant bi pour. jawaay ñun euh, ñun ñun dañoo paré bu yàgg. alors <laughs> c'est clair. euh Sonko woon vidéo wuyu le 14 mars. fa na xam ni itam mooy zone Cour suprême par le biais de ses avocats sur la radiation exactement après ce pouvoir bi na xam ni euh, les agents judiciaires ñoo ko daal déposé ni daal di contester cette décision bi na xam tam Ousmane Racine Tala Ousmane Racine Thion jël na ko exactement ban jangat nga ci def peut-être pour 30 secondes. wa ndam rek inshallah hmm vous rek parce que de bu li li li partout où le droit sera dit hmm. Ousmane Sonko aura toujours raison que ni juste euh, juge mënul décision hmm. Dakar une décision am wax dëgg cour suprême ñëw naan yéen ñaar ñii yëpp seen dëgg yi décision. wax ay là, la mënul nekk donc Ousmane Sonko am la ñuy doon ñaawlu mooy waa conseil constitutionnel bala ñu doon valider balaa ñu doon invalider candidature Ousmane Sonko. Mm. dañoo waroon xaar ba radiation bi yegg. Mm. waaw parce que dañu né bala ñuy radier nit. Mm. il faut que juge bi prononcer ko té juge bi nga xamné mo moo won affaire Mame Niak Ousmane Sonko prononcé wul radiation wu Sonko kon conseil constitutionnel fofu mom duñ fa juum dañoo waroon xaar ba radiation bi yegg ñu soo ko invalider. Mm. mais nag comme ñoom bëggoon nañ ko invalider. Mm. may nañ leen ko ñu invalider ko mais invalider ko taxul ñun am nañ candidat. alors waay. waaw <laughs> donc nañu xam ne daal li am solo. Mm. mooy conseil bal bi si ñoom la nekk. bu la neexee ñu bëtt ko. bu la neexee ñu ëffaat ko mu gën a ngan. en tout cas daal bu la neexee ñoom ñu fubal ko ñu bal bi moom moo ko yor moom moo koy centré. bis bu bis ko centré si Macky Sall. affaire bi dem si pensé si Macky Sall. population bi nag moom amal naa ak ak population bi. waaw parce que population bi moom la ñu déggu te il est là pour la population. waaw ah, ñoom nañu wax li nga xam ne moom moom la yoon wax. Hmm. te Macky jeexal na. nañu Macky Sall jeexal na <laughs> dafay wàcc incha allah ñoo ngi koy ñaanal jàmm moom ak njabootam ñu wàcc si jàmm. incha allah nañu jàpp suñu datu élection fii si hmm. mars bii lañ ko war a jàpp. Hmm. ñu def ko balaa Macky Sall di wàcc. lépp lu ñu fi def leneen. ñoo ngi tooñ population bi di di di di la sant di la gërëm si invitation bi ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñu doon déglu tamit ñoo ngi leen di ñaanal jàmm mm. di ñaan eh, ñu tasewaat fii ay ay yoon yoon mm. koor gi nga xam ne tamit ñoo ngi ci waaja dugg mm. yàlla ñu yàlla may ñu woor ko si jàmm eh, képp ku si feebar yàlla na borom subhanahu wa taala teggi feebar bi jafe-jafe yëpp yàlla nañ ko borom subhanahu wa taala dindil yalla ñu yalla defal jamm ci dëkk bi defal leen jamm té def suñu poste dara. amin eh, amin bu dee baax baax baax baax du ñak itam ci koor gi dinañ la xaar si soir de Ramadan. waaw <laughs> ah, inshallah <laughs> ci li nga xam nek bu. inshallah inshallah incha allah ak seen programme koor bi nga xam ni itam c'est télévision Sénégal 5 TV bu leen ko daal di réserver donc soir de Ramadan on rendez-vous à retrouver du lundi au samedi à partir de 20h euh, wala 21h dem li nga xam nek moo di minuit leen ci jaajëfal bu baax baax baax aussi ànd bi saa su ak suñu programme perso aussi à l'ensemble des équipes suivi en régie merci de votre fidélité de votre constance alors le ma nekkoon Monsieur émission Midi Info bu tay bi spécial Midi Info leeral exactement Midi peut-être pour euh, éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport à li n'a xam que moo di ces questions juridiques yi nga xam ni itam Ahmed Silla yaatal Noko, ko leeral na ko si nu mu gën a yaatoo mbokk spectateurs yi ñu leen jox di daje ba suba à partir de 13h30 on se retrouve à nouveau seen émission de nga xam ne que d'ici là portez-vous bien et bon après-midi. merci beaucoup. CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CIPEP des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal.